palais hey damay dugg ci palais bi hey damay dugg ci palais bi man mi damay dugg ci palais bi hey damay dugg ci palais bi su ma duggee damaa baro baro baro ci biti daabo ci biir baro ci biti daabo ci biir baro ci biti daabo ci biir hey baro ci biti daabo ci biir baro ci biti biir hey baro ci biti daabo ci biir hey na def maa ngi leen di nuyu soo ñoom deganoo dañu doon meeting Banjul waa mburu ak soow hey mburu ak soow bu ñu defee seen meeting ñu wax ne Sénégal ay Gambia yëpp ngi woon foofu man maa fa jaar xay dañu doon jënd ay nit ah. waaw saamu nit ten thousand dollars yi ah. waaw dañu koy jënd foofu ñoom so because pata yi dañ leen di fay two thousand two thousand dollars yi parce que pata yi bu ñu feesee foofu ñu leen ne dafa bëri nit waaw amul ñu sew ñoom dañoo dem ba so because Gambia dañoo génn dem Kaolack indi ay nit foofu kanamu Gambie neex na xàmmee Gambie bëriwul pata Gambie bëriwul pata parce que ñu nekkoon ci meeting ñu ngi dëkk Kaolack ak Louga nañ leen jëlee duñu ay Gambien boobu because man xam naa baro baro amul mbooloo hey Yaya Jammeh amatul dañoo xeewi man maay débat bi xew man maay dugg ci pale bi gambien bu jigéen ak gambien ay du pata mhm, du pata mooy ku lekk ba suur <laughs> ku suurul doo pata mhm, ay pata rek la jëli Sénégal indi ko foofu man xam naa yaa dafa xewi bara xewi man mii maa xew moo tax wax naa leen ko duma ko bàyyi mukk soo because man dugg naa ba pare <laughs> dugg naa soo def naa nekk naa président parce que xam ne because mag yi nekk Gambie yëpp mën nañu wóolu. Yaya Jammeh li mu def Gambie yàpp ko ñëpp wax li Yaya Baro wax Yaya baaxul ba ñëpp ne hey kaay ñu ànd ak Baro. mu ëlbatu ne hey. Yaya moo baax. moom mooy mburu. Yaya mooy soow. duñ ko ponsee Gambie bi duñ ko ponsee Gambie. hey. fara daabo ci biir. gambi ah. maa koy gambi maa koy yor. fara eh, ci daabo ci biir. gambi yaa ko mën a yor gambi yaa ko mën a